أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokk yi suñu dars tey ci qisasul anbiya ñu ngi koy def ci ziwaaju ismail alayhi salaam muy takk soxna bi nga xam ne ismail alayhi salaam denc na ko soxna laqad allamana laqad alimna anna ibrahima alayhi salaam qad taraka zawjatahu hajara wabnuhu ismail alayhi salaam bi makka wa kaana yazuruhuma bayna xiinin wa xiin liyatma'inna alayhima ginnaaw ba ñu jàngee ñu xam ne ibrahima alayhi salaam bàyyi na soxnaam bu tudd haajara ak doomam bu tudd ismail ca makkatal mukarram ca xuri makka ya ca montagne ya ci dëkk boo xam ne amul mbay amul garab amul ndox mu ñu naan amul lekk bu ñu mën a dunde jàpp na soxna si ak doomam yóbbu leen ba ca xur ya mu teg leen fa won soxna si ginnaaw won xale bi ginnaaw soxna si jàpp ci mbub mi ci ginnaaw mu daal di gees mu ne ko fii nga ñu bàyyi koo ñu fi bàyyeel mu ne ko yàlla mu ne ko kon yàlla duñu seetaan Ibrahima daal dem yoonam waaye léeg-léeg ku toog ay at ay weer ay jamono waxtu diir bu bàyyee ko Palestine ñëw seet si soxna si ak doom ji ñaari soxna la yoroon ñaari kër saara ak doomam ishaq haajara ak doomam ismail léeg-léeg mu bàyyi ko kër gu mag gi dem kër gu ndaw gi kër gu mag gi mooy saara ak ishaq kër gu ndaw gi mooy haajara ak ismail léeg-léeg mu bàyyi ko kër gu mag gi ñëw nemmeeku waa kër gu ndaw gi ngir xelam mën a dal mu xam li ma fi bàyyi lan la wa laqad aasa ismail alayhi salaam fi makka ismail dund na makka ndeke kon li indi ismail makka lan la mooy baayam ibrahim moo ko indi foofu moo ko yaayam ismail daal di fay màgg daal di fay dund ca makka wa taallama asyaan kasira bisababi mujawaratihi li qabilati jurhum wa gayrihim min qabaili allati sakanat bi jawaarihim nee na ibrahim jàng na ay mbir yu baree bari ci gox boobu mu dëkk muy màkka jàng na fa ay mbir yu bari ci sabab bi mu dëkk xeet boobu tudd jurhum nekk ay arab ak leneeni xeet yeneeni famille yoo xam ne duñu ay arab waaye ñoo ngi dëkk ci wetu kaaba gi lan moo waral yeneen xeet yi dëkk ci wetu kaaba gi mooy benn bis xam ngeen ni misaal bu ndaw rek ni pël yi di def dañuy wër ci àddina bi dañuy wër ci gox yi mais fu ñu dem ñu gis fa lenn rek dañ fay dëkk mooy mooy mooy
gàtt
pël yi lan la ñuy wër ci àddina bi gàtt sàmm ndox fu ñuy dem gis fa ndox rek dañ fay dëkk lu tax ndax ci jamono yi ndox dafa jaf mën nga gis lu nekk ci lekk mais doo gis ndox léegi nag ñëw nañ beneen bi mooy chaque jour fu am ndox soo ko buggee xam boo xoolee kaw asamaan lan moo lay wan ne fii ay ndoxam fi ndoxam fi asamaan si abadan lan moo lay wan ne fële ndoxam fa te yaa ngi fii ay jéeli ay picc yuy naaw nii ci kaw day wane ne fi ndox mu ngi fi li ñu séenee picc yi ñoom famille yooyu ñu ñëw ah gis ndox boobu zam-zam mi ngi ball du jàngoon nañ histoire zam-zam bañ ci tollee ñu ñëw gis soxna si ak doom ji ñu ne ko ñu ne dañoo bëgg a dëkk ak yow mu ne d'accord mais dafa am charte luy charte mu ne ndox mi du ngeen ko laal sama ndox la ñu ne ko waaw ñu dem ba ci yàgg ñu ñëw ne ko ñun de dañoo bëgg wax dëgg yàlla ndox mi comme dëkk nañoo ak yow seet noo ñu ciy xéewali mu ne waaw comme yéen yéen a am lekk man maa yor ndox su ngeen ñu joxee lekk ñu jox leen ndox moo joxee bëri ko soow moo jox leen bëri ko ndox su nga moo joxee paanu cere ma jox leen paanu ndox noonu mu indi waa Jurhum daal di dëkk ak Haajara ak Ismaayil ca Makka ca ndox mu sell mu barkeel moomu tudd Zamzam wa kabira Ismaayil Ismaayil màgg na nekk waxambaane wa tazawaja mu daal di takk soxna ci xeet boobu ci giir boobu ci famille boobu tudd Jurhum benn bis Ibrahima Ismaayil moom lu muy liggéey lu mu doon liggéey mooy rëbbkat la woon xëy del rëbbkaayam dem ca àll ba rëbbi lu ay njabootam lekk lu yaayam lekk ak lu soxnaam lekk benn bis Ismaayil xëy dem fa jaa Ibrahim baadama tazawwaja Ismaayil yutaaliu tarkatahu Ibrahima xëy di ziyaara ji di visite ji di nemmeeku ji lim fi bàyyi woon ca Makka lan la fa bàyyi woon lan la fa bàyyi woon lan la fa bàyyi woon lan la fa bàyyi woon très bien yaa ngi doog a ñëw kilifa kenn du wax jabar lu ñuy wax soxna Ibrahima ñëw di nemmeeku mu fekk soxna si nga fi bàyyi woon ak doomam Ismaïl mu ñëw di leen nemmeeku falam yajid Ismaïl mais fekkul ca kër ga Ismaïl fa saala imraatahu mu laaj soxna ib Ismaïl ana sa borom kër fa qaalat xaraja yabtaxi lana sama borom kër de génn na fu mu jëm dafa uti lu nu dunde fa dem uti lu nu dundee léegi borom kër amul droit xëy tëdd di nelaw dund kër gi kan la war yow saa yoo xëyee danga war a génn uti sa soxna ak sa njaboot lu nu dundee waaye borom kër xëy tëdd ne léng tëdd di nelaw Ismaïla xëy na génn papaam ñëw ginnaawam di ko nuyu si fekk ko su ma saalaha an iishihim mu laaj soxna si ne ko yéen lu ngeen di dundee lan ngeen nekkee fi ci gox bi fa qaalat nahnu bi charrin ndaw si ne ko ñun ci musiba lañ nekk nahnu fii diiqin ñun ci xat-xat lañ nekk wa shiddatin ak tartar ngeen ndaw si li mu tontu Ibrahim li mu tontu goroom bu góor te ba mu koy tontu moom jàpp na ne benn paa bu màggat rek borom sikkim bu weex tal ku mën a laaj bëri wax rek moo fi jaar fekk xamul ne kii muy waxal mooy baayu Ismaayil mooy goroom mooy baayu borom këram lu ngeen di dunde mu ne ko ñun kay ci musiba lañ nekk naanu bi charrin ñun kay dundunu lekk ñu naanu nu xiifunu dundunu ci problème rek xam nga ko xëy di rëbbi mën naa jàpp mën naa bañ a jàpp loolu la gars yi naan kuy xëy di takkale mën ngaa xëy takkale mu bañ a kole ah mu bañ a takk su waa nooy def ndeysaan mu ne ko ñun de ci musiba lañ nekk ñun de ci xat-xat lañ nekk ak tartar fa sakkata ilayhi góor gi daal di noppi wa qaala fa ida jaa zawjuka faqri'i alayhi salaam wa quuli la yuxayiru atabata baabi maa ngi dem bu sa borom kër ñëwee jottalil ma ko nuyoo ne ko am na góor gu fi jaar mu ngi koy nuyu ne ko góor gi nee na na changé buntu këram gi buntu bi fi mu nekk baaxul Ismaïl nekk ci àll bi ba heure bi neex yàlla Ismaïl a dellu Ismaïl a dellu si ci kër gi xam nga jigéen ju bon booy njëkk a xamee jigéen ju bon mooy boo génnee ñëw ci buntu kër gi nga koy fekk doo ko fekk mu ci biir kër gi boo duggee ci biir du la may ndox du la ne nijaay bismillah du la dalal du la indil ndox du la dàngala laaj bi ci buntu kër nga koy romb nga toog ci mu toog ci keppaaru garab yi di fen rek wala muy gisaane xam ngeen gisaane mooy pettaaw di def ni pettaaw yi nga romb ko dugg mu woo xale yi ne leen tàngale leen seen papa añ bi añ nga añoo yoonam nekku ci sangu nga sangoo yoonam nekku ci Ibrahima Ismaïla ñëw rek mu ne ko am na góor gu bari wax gu fi ñëwoon da ngeen a nuroo nag sax yaa ngi moom naa ne moom na lu ngeen bokk ci këmbal sa kanam gi lu mu wax mu ne may wax mu ne am lu ñuy dunde lu ci yoonam mu ne waaw lu mu wax mu ne nee na nga changé sa buntu kër gi lu ci yoonam mu ne ko dafa ne ma fase la loolu mooy ma fase la fase naa la dama seen kër da ko cax te ndaw si déggu ndeysaan mu am ay at Ismaïla fase na jabar ji lu tax parce que jabar ji baaxul Ibrahima xam na ne kii munul nekk jabaru yonent ndax yonent yi ci ay jafe-jafe la ñuy dund te bu ñu takkee soxna soo xam ne munul ànd ak ñoom ci jafe-jafe yi du sotti moo tax pour nga am ay doom yu tekki foog nga muñal sa jëkkër ànd ak moom ci jafe-jafe yi gis ngeen Haajara bi mu nangoo déggal Ibrahima nekk ci àll ba am na doom bu tudd Ismaayil doom boobu lan la yonent comme Ismaayil tamit dafa war a jur yonent kon yaayu yonent boobu foog ñu préparé ko du nekk n'importe qui ku munta muñ xiif kooku mënoo jur yonent koo xamante ne bu añul tàcc la juróom ñaari yoon ne la ba ma nekkee sama kër baay kafe gi ceeb bi nangam nangam dara manqué wul et puis man ci étage laa doon nangam ci mënul nekk kooku mënul nekk yaayu yonent moo tax Ismaïl Ibrahima xam na ne kii mënul nekk soxna Ismaïl mu ne na ko fase Ismaïl daal di koy fase nga xool nitu yàlla yi nit ñu njëkk ñi tey kenn ci ñun bu la sama ba ne woon fasal sa jabar danga naan mais mais paa bi paa bi paa bi xaw ma lu ko dal mais day font rek man damay génn lu ji appartement waaye yow fële nga ay naan du góor gi loo xam mu naan fasal sa jabar fasal sa jabar mooy waxi lan gis ngeen waaye Ibrahima Ismaïl bi ko papaam ne fasal sa jabar tegu ci baat parce que xam na ne papaam du waxantu parce que xam na ne papaam nitu yàlla la xam na ne papaam yonente la papaam lu mu wax dëgg la moo la mu ne ko fase naa la Ismaël daal di toog ay at diir mu daal di takkaat beneen jabar Ibrahima toogaat diir ci lu ko neex daal di ñëwaat di seet siwaat Ismaël mu ñëwaat ci même kër gi mu fekk Ismaël génn naan na comme d'habitude comme ni muy xëyee par suba di génn góor gu baax bu xëyee day génn këram ñee mu daal di nuyoo mu fekk fa xale bu jigéen bu baax bu ko recevoir na ngeen def ñu ngi ci jàmm lan mooy seen dund mu ne ko ñun ñu ngi ci jàmm nahnu bi xayrin wasiatin ñun ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci yaatu ñu ngi dund dund bu neex ñu ngi sant yàlla ci lum ñuy wërsëgal qaala qaala ma taamukum waaye lan ngeen di lekk sax qaalat allahmu mu ne ko ñun yàpp la ñuy dundee wa ma sharabukum yéen lu ngeen di naan qaalat alma ñun ndox la ñuy naan ibrahima ne leen allahumma barik lahum fi llahmi walmaa'i yàlla yàlla nga leen barkeelal ci seen yàpp ak seen ndox yàlla yàlla nga barkeelal waa dëkk bi ci seen yàpp mi ak seen ndox mi qaala annabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa lam yakun lahum yawma izin habbun yonent bi nee na jamono yooyu pépp dugub amul màkk walaw kaana lahum daa lahum fii bu fekkoon ne dugub ak pépp gerteeg ñebbe amoon na fa kon Ibrahima dina leen ci ñaanal waaye loolu amu ko woon wala mu ñaanal leen ca la fa amoon mooy yàpp ak ndox fa huma laa yaxlu alayhima ahadun bi gayri makka wa illa lam yuwaafiq nee na ñaar yooyu bi ko Ibrahima ñaanee ba léegi du manqué màkk yàpp ak ndox du manqué màkk fu waay jóge rek fekk ko fa xaala fa isa jaa zawjuk ibrahima ne ko maa ngi dem fi jaaroon rek di leen nuyu bu sa soxna bu sa borom kër ñëwee faqrai alayhi salaam nang ma ko nuyul wa murihi yusbitu atabata baabi bu ñëwee nga ne ko buntu kër gi fii mu ko def fii la mu ko changé de buntu kër gi normal la Ismaïla ñibbisi soxna si teeru ko dalal ko jox ko ndox mu sangu jox ko mu lekk jox ko mu naan ba mu noppalu gis ngeen wuutee ku njëkk ah lu fi xew sama ginnaaw mu ne ko am na góor bu baax bu fi ñëwoon ziar sa la nuroo ngeen sax de lu mu wax ah laaj na ma lu ñuy dundee sant yàlla wax ko ko mu ñaanal mu ne ko lan la la dénk ne nag ma ko wax mu ne nee na sa buntu kër gi fii la na nga ko samp mu dëgër allahu akbar Ismaïla comprendre ne mu ne ko nee na naa la téye mu dëgër yow soxna su baax jigéen ju baax ci kër su gani ñëwee ñu xam ne du ñu xam ne borom kër gi nekk fi waaw borom kër gi nekk fi borom kër gi bañ fay nekk moom mooy yem ci moom ku ñëw lekk ku ñëw naan ku ñëw noppalu ku ñëw am dal waaye soxna su bon borom kër gi nekk fekk bañ fay nekk yem doo lekk doo naan doo noppalu doo xool xool yu bari doo wax asalaamualeykum maaleykum salaam ana sama sa borom kër nekk fi fu mu dem xaw ma ko kañ lay ñëw xam ah loolu mooy fii doo fi ajee waaw moom moo weewoo nga buub sa bagage an sa borom ko gisuma ko fu mu dem xaw ma ko kañ lay ñëw xaw ma ko ba pare taxaw di la xaar jàpp ci loxo buntu kër gi mooy booy reculer di teg sànq rek ñu ne buntu kër gi tël mu tëju loolu baaxul gis ngeen Ibrahim ak Ismaïl ak soxna Ismaïl mu ne ko ne ko samp mu dëgër mu laaj ko ba mu ko laajee mu wax ko lépp mu ne ko nee na naa la téye ginnaaw loolu mbokk yi laqad shabba Ismaïl fi hadihi albia ka ahsani ma yusibu alfatiyan Ismaïla dund na ci gox boobu muy Makka ci biir famille boobu tudd Jurhum nekk waxambaane dund fa dund bu rafet comme ni xale bu góor di nekkee ci péncam dund fa dund bu rafet wa kaana yatadafaqu xayawiyatim wa nashaat Ismaïl ba mu fay dund dund na fa dund gu dëgër dund gu ànd ak cawarte wa zaanahu xuluqun karim Ismaïl bokk na ci li ko rabaaxaloon mooy jikko ju rafet moom Ismaïl ci borom jikko yu rafet yi la bokkoon jikko yu tedd wa sajaaya azima amoon na ay may yu rëy yu ko yàlla mayoon moom Ismaïl xam ngeen ne Ismaïl bu ñu leen waxul li sax war ngeen xam ne dafa yaru ku sa baay ñëw indi paaka ne la gént naa dama laa war a rey nga ni ko yaa abatif almatu umar sa tajiduni insha allah min assabirin yow baay defal li la yàlla sant insha allah di nga ma fekk may kuy muñ xam nga ne kooku yaru la yaru na tey jii ci ñun fi ku sa papa ne woon dama laa war a rey na nga daan ko peer loo wax mu ne non dama la war a rey yow ma ne ko ah xaaral ma ñëw da nga ma war a rey mu ne waaw ne xaaral ma ñëw wala nga may rey ma kill la la wax naan sa life da nga dégg benn sénégalais bu naan paa bi day dof doxlu dama naan tat wax ko ngeew wala dama naan tat wax ko raay yow bi nga nee cocc mun a wax raay nga naan dama naan tat wax raay xam nga loolu normalul ku màndi xam nga ne du wax jàmm te fii da ngay gis ko ëpp ne yow damay dem màndi ji wax paa bi dëgg xam nga paa bi yéen a ko bàyyi li mu nekkee tat laay def tey wax ko raay du dëgg munul nekk wala Ismaïl moom ak baayam moo tax mu dund dund gu baax dund gu sell dund gu yiw dund gu ànd ak ay may fa ahabbahu mujaawirihi dëkkandoom yëpp daal di koy bëgg moom Ismaïl fu mu tourné ñu ne xale bu baax fu mu tourné xale bu yaru bi nit bu yaroo bàyyi yépp lay bëgg te yow doo nekk seen doom abai ahabbaka wa ma anta lahum bi ibni nit su baaxee ku la gis bëgg laa jur mais soo bonee dañ naan doomu diw la boo jaar ñu ne xolal doomu diw baa ngi ne mais soo baaxee kër gu ne asalaamaaleykum ñu ne diw yi suñ doom la kii waaw suñ doom la suñ doom la yow suñ mais boo bonee nag ñu bàyyi la ak sa ndey ak sa baay nan lañu yàlla musal nee na moom Ismaïl mu dund dund googu ba benn bis moom ak soxnaam benn bis yaayam daal di faatu kan moo yaayam Haajara wa maatat ummu Ismaïl yaayam faatu na ginnaaw moom ba mu magge ba mu magee waaye balaa muy faatu defar na ko toppatoo ko yar ko yar bu baax ba xelam dal wa jaa ibrahim yastaliu tarkuhu falam yajid ismail fi manzilihi faqad xaraja yatlubu alquut wa taamu li ahlihi benn bis ismail ibrahim génn di wëri lu mu dundee comme d'habitude ibrahima daal di ñëw di ko seet waaye fekkul ismaila ci këram waaye fekk na fa soxnaam mu xamal ko mbir yëpp yi ñu leen waxoon sànq góor gi daal di koy jàngal mbir yi daal di ko koy xamalaat Ibrahima ba mu gisee ne soxna si ku baax la mu daal di def ci moom ay ndénkaane yu baax ndénkaane yu yiw yu sell ndénkaane yoo xam ne tey jii ci fii ñuy wax ak yéen ndénkaane googu jëriñ na waa réew moomu ña fa nekk ndax lan li seen soxna nanguloon seeni borom kër ginnaaw loolu qissatu binaa il kaaba histoire ibrahim ba muy tabax kaaba gi kaana sayduna aadama alayhi salaam huwa awalu man banal kaaba kaaba gi ngeen gis li ko njëkk a tabax ci kaw suuf mooy aadam moo ko njëkk a tabax nee nañ avant aadama di ko tabax malaaka yi ñoo ko tabaxoon après aadama bi mu ñëwee mu yëkkati fondement bi walakin jamono ji ñëw kaaba gi daal di màbb ba jamono ibrahim yàlla tabaraka wa taala jox ibrahima ndigal na ko tabax moo tax ngeen jàng ci alquran inna awwala baytin wudia linnaas lalladi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin yàlla mu ne première néeg bu ñu tabax ci kaw suuf pour di ci jaamu yàlla ban dëkk la ban ban jàkka la mooy màkk première jàkk bu ñu tabax pour jaamu ci yàlla mooy alkaaba première jàkk bu ñu tabax ci lislaam nag ban jàkk la déedéet hmm? première jàkk la bu ñu tabax ci lislaam masjidu quba barakallahu fiik ah Quba la yonent bi njëkk a julli àjjuma balaa muy dem Médine hmm? yonent bi ne cëpp Médine nag daal di tabax jumaam ju mag ji ni jumaa jooju ngeen di gis ba léegi mu ne wa kaana Ibrahim yàlla wax yu na ko moom Ibrahim summa awha allahu ila Ibrahim alayhi salaam an yabniya al bayt maratan uxra wa yarfaw qawaidahu yàlla mu ne Ibrahim yëkkatiwaatal fondement kaaba gi nga yëkkatiwaat néeg bi wa kaana Ibrahim alayhi salaam yazabu ila zawjatuhu yazabu ila ibnihi Ismail alayhi salaam li yatmainna alayhima fi ihda hazihi zawiyat ja Ibrahim alayhi salaam yazuru ibnahu nee na Ibrahim ci biir loolu nga xamante ne mu ngi doon ñëw doon nemmeeku njaboot gi ci la ko yàlla xamal ne dafa war a yëkkatiwaat néeg boobu muy kaaba gi ngir mu def ko jaamukaayu yàlla ndeysaan ibrahima ci la commencé di ànd ak ibrahim ismail ñuy defar bir yi mu nekk xale bu baax bu déggal baayam di indil baayam ban ak ndox ak li ci aju pour baay ji daal di yëkkatiwaat néeg boobu nga xam ne yàlla tabaraka wa taala moo ko sant na ko ko yëkkatil moom ibrahima alayhi salaam bi ko ko baay ji waxee ne ko yàlla de moo ma jox ndigal pour ñu war a yëkkatiwaat néeg bi kaaba gi xale bi tegu ci baat dafa commencé rek di dimbali baayam waaye ñoom ñaar balaa ñuy tàmbali dañoo ñaan yàlla ba pare loolu moo tax ab julit lépp lu muy def ci kaw suuf bala mu ciy dugg war na tànnlu yàlla war na ñaan yàlla war na def istixaar da ngay tukki tànnlul yàlla tukki bi defal istixaar ñaanal yàlla da ngay ut liggéey defal istixaar tànnlul yàlla ñaanal yàlla da ngay takk soxna defal istixaar tànnlul yàlla ñaanal yàlla da ngay jënd waruwaay defal istixaar tànnlul yàlla ñaanal yàlla da ngay jënd kër dafal istixaar tànnalul yàlla ñaanal yàlla ñaanal yàlla bu baax lépp looy def ibrahima loolu la def dafa tàllal yàlla ay loxoom ne ko rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim yàlla lii ñuy tabax yàlla nañ ñu ko nangul kii mooy maçon maçon boo xam ne moom buy teg birig lay ñaan yàlla bu xëyee di tëg biri ci turu yàlla la koy teg rabbana yow sunu borom taqabbal minna yàlla nag ñu ko nangul innaka yow yàlla anta yow assami yaay aji dégg al alim yaay aji xam moo tax gis ngeen yonent yëpp dañoo amoon métier barki dem romb ngeen yonent bu tudd Nuux lu mu doon liggéey moo yaxtoon gaal gi wasna'il fulka bi ayunina romboon ngeen Idris lu mu liggéey da daan ràbb te yéen a ngi nii gis ngeen Ibrahima muy lan muy tabax est-ce que tabax bi dafay jëkk ci bu xëy yàlla mën na ko tabaxal peut-être que da koo mënoon te nag bu fekkee yonent yi ñoo doon liggéey tey nit ñoo am ay borom xam-xam yu dul liggéey sangu rek solu toog seen saal sol seen yére yu weex gars yi ñëw di ziyaare ak di leen bës ñoom duñ liggéey dara kilifa diine Sénégal kan kan kan kan ngeen gis muy liggéey wax leen ma lu ñuy liggéey liggéey bi dara te yonent yi dañ doon liggéey te yonent yi ñoo gën ci nit ñi Moussa da doon sàmm yonent yàlla Muhammad commerce na sàmm na ah ah Isa da doon faj koo wax rek am na lu mu doon def ci yonent yi koo wax am na lu mu doon def ñun Yusuf ministre la woon jàng na loolu Yusuf ministre la woon loolu liggéey moo yoroon économique réew ma ku nekk am nga looy liggéey ku nekk am nga looy liggéey ci yonent yi ñun nag ñu am ay kilifa diine yu dul liggéey te kilifa diine yu njëkk yi dañ doon liggéey te loolu tey boo gisoon benn benn benn kilifa diine di liggéey yaa subhanallah yow waroo def dara toogal macha toogal toogal toogal toogal loolu musiba la bu toogee bu liggéey lu muy lekk El Hadj Malick jàngale na bu gumba ñu ne ko sëñ bi mu ne bu ma toogee lekk riba bu ma toogee lekk riba ñii may jàngal ñi yor tool bi loolu mooy fay bi bàyyi leen ma jàngale ñoom ñëpp dañ doon liggéey dañ doon am lu ñu doon def seen daara seen tool seen jàkk ñett yi lañ xamoon tool ba daara ja jàkka ja tey nag daara ja rek hmm? kër ga rek kër ga amul daara tool bi ñu fa nekk dana yàlla jubal ixwaan yi mbokk yi mu ne ibrahima alayhi salaam tàmbali na tabax bi di ñaan yàlla qaala taala mansuran hada al masad al jalil yàlla sax ndeysaan moo ñu nettali mu ñu filmé ibrahima mook doom ji biñ doon tabax kaaba gi borom bi ne wa is yarfau l ibrahima alqawaida min albayti wa ismail rabbana taqabbal minna innaka anta assamiu alalim ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتهم يتلو عليهم آياتي آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم yàlla mu ne Ibrahima ba muy yëkkati fondement néeg ba mook Ismaïl ña ngay ñaan yàlla ñoom ñaar su Ibrahima su Ismaïl demee yenu benn birig ñëw jox Ibrahima Ibrahima teg yëkkati ciment bi di teg naan yàlla yal na ñu nangul rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim rabbana yow sunu boroom waj'alna yal na ñu def muslimayni lak ñu ne ñaar ñoo xam ne dañ laa jébbalul man ak sama doom yàlla ñu def ñoo xam ne dañ laa jébbalul wa min zurriyatina ñun ak sunu njaboot ñun ak sunu njaboot ñu nekk ñoo xam ne dañ laa jébbalul su ngeen Ibrahima ñaanal na boppam ñaanal na doomam waaye ñaanal na njaboot yi war a juddu foofu ci barab boobu yàlla ñu def ummatan xeet woo xam ne muslimatan laka dañ laa jébbulul yow yaay sunu boroom ci yow lañ jébbulu yow yàlla tabaraka wa taala wa arina manasikana yow yàlla yal na ñu won yal na ñu jàngal ni ñu lay jaamu wa tub alayna yal na nga nangu ci ñun tuub wa tub alayna yal na nga nangu suñu tuub innaka yow yàlla anta yow at tawaab yow yaay kuy nangu tuub arrahim yow yaay kuy yërëmaate yow yàlla yàlla nga nangul suñu tuub ngay sax rabbana yow suñu borom xeet bii jàkk ji may tabax dëkk bii wabaas fihim rasulan minhum yal na nga leen yónnee yonant boo xam ne ci ñoom lay bokk yatlu alayhim ayatika bu leen di jàngal sa téere wa yuallimuhum mu leen di xamal alkitaaba téere ba mu leen di jàngal di leen xamal téere ba wal hikma mu leen di jàngal sunna wa yuzakkihim mu leen di yar innaka yow yàlla anta yow al aziz yaa not ci sa nguur al hakim yaay ko xereñ gis ngeen ñaan boobu moom la yàlla nangu mu nekk yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ibrahima yemul rek ci tabax jàkka ji bàyyi mais dafa ñaan yàlla yal na leen yàlla yónnee kuy taxaw néeg bi boo xam ne da leen di jàngal yar leen gis ngeen aaya bi dinañ ci jël ñetti biir nit ñi bu ñu bëggee baax lu ñu def jàng gis ngeen Sénégal lu tax ñu àll jànguñu islam kenn jàngul tus da ngay judd rek di falal-falal dugg ci jàkk yi rek di dóor ràkk yi di mbëkk di tulli di dem di bule ràkk yi lu koy si jóodi rek di ko tulli sa yoon nekku ci nuñ koy defee ahkaam yi moom seen yoon nekku ci mbiru diine yi seen yoon nekku ci ñu pour ñoom dañoo war a julli rek jeex na jullit bu jàngul musiba la alquran téere la boo xam ne ku ko bëgg a dund foog nga jàng aay bi njëkk a wàcc alquran lan la wax iqra jàngal waxul xeexal aay bi njëkk a wàcc alquran yàlla waxul muhammad qatil saytir forcel jahid jihaadal lan la ko wax iqra jàngal jàngal iqra jàngal lan laay jàng mu ne bismi rabbika jàngal sa turu borom mooy lan jàngal diine bismi rabbika muy téere bi njëkk a wàcc moo tax boo jàngee jàngoo diine tamit ngay nax sa bopp moo tax gis ngeen tey Sénégal bokk na ci ñi ko yàq dañoo jàng waaye luñ jàng jànguñu diine wala ñoo yàq dëkk bi ku jàngul diine rek bandi ngay nekk sàcc milliards yëpp sàcc nañ ko dëkk bi yëpp yàq nañ ko mu ngoog yàlla ne Ibrahima ne yow yàlla yàlla nga yónni ci dëkk bi yonent boo xam ne day jàngal waa dëkk bi waaye da leen di yar wa yuzakkihim jàng ak yar moo ànd nit ñaar yooyu mooy ànd ci moom dañ koy jàngal yar ko nit suñ ko yaree jàngaluñ ko xam ngeen lu muy nekk mbaam luñ jël teg ko buñ ko ye buñ ko jàngalee yaruñu ko xam ngeen lu muy nekk saay-saay mooy comme lii am tey gars yi jàng ba ne ar nga gën laa wuyu gën laa baañ su fekkee nag nit ñi moom dañ leen yar kese jàngaluñ leen ay mbaam la ñuy nekk mooy luñ jël teg seen kaw waa ji day dañ koy bayloo tool rek muy dox du sol dàll du sangu du sol yëre bu set ñu naan ak a yaru fekk dof la mbaam la muy liggéeyal moroomam bàyyi boroomam bu fekkee dañ koo jàngalul yaruñu ko nag hmm? buñ ko jàngalul yaruñu ko ban léegi.
dof lay doon dof buñ ko jàngalee yar ko nag mu nekk nit ku baax mu nekk nit ku xam boroomam moo tax Ibrahima ñaanal leen ñaan gi ne yow yàlla yal na ñu yo- yal na leen yónnee yonent boo xam ne da leen di jàngal yar leen yar leen lan ci alquran ak sunna wa yuallimuhum alkitaba walhikma alkitab mooy quran alhikma mooy sunna gis nga mu ne wa yuzakkihim da leen di yar innaka yow yàlla anta yow al aziz yaay ku not sa nguur al hakim yaay ko xerañ incha allah mbokk yi fii la ñuy yem ba àllarba bii di ñëw incha allah am nañu yàlla may wér ak tar ak fekke li ci jub ci yàlla la bàyyee ko njuumte ñu ngi koy jéggalu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh